Ah, jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellusiwaat ak yéen ni nga ko baaxu defee saa su ne si seen seen YouTube Bio ma mbokk yi ñuy suivre ci TikTok tey nag dañu daal di indi leen saabu bu ñuy tuddee saabu niim xam ngeen ne niima ah, dafa di meññeef goo xam ni la ca nekk si njariñ dafa yaatu boo demee ca réewu Inde ñoom min nañ ko xam nañ ko xam-xam boobu ñu ko xam tax na ñoom ñu ciy defar lu bari loole bokk na tey lu ñu fas yéene indi ngir wane ko ngir askan wi nga xam ne ñoo ngi seetaan déglu ñi nga xam ne xam nañu lan mooy saabu niim saabu niim saabu la boo xam ni dafay tàmbalee ci bopp lépp luy karaas daf koy rey mu dañ lépp lu am jafe-jafe ci wàllu daru karaw daf koy rey mu dañ ndax ci dolli lépp loo xam ni tache la lépp loo xam ni ku rëpët la lépp loo xam ne luy xub lu nekk ci der te yàgg fa lool saabu nim moo ci gën ñenn ñi sax daanaka bu ñu amee ay picc yooyee nga xam ne dafa leen sonal ba fu mu laal fu ne foofu amaat taamu nañu di utiliser saabu nim saabu nim saabu la boo xam ni prévention la tamit ci wàllu der ndax xam ngeen ne saasu ne feebaru der mën nañoo dab ci anam yu bari dabin woowee tax na saabu ñu yeboo ñoo ngi seet luy saafara saafara gi nag indi ko teg ko ngir kiy seetaan saa bu ko ittewoo mu daal di ko mën a am kon yow mi seetaan déglu lii mooy saabu niim muy saabu boo xam ni niima lañ ko defaree iwul niim ndax doom yi ak xob yi yooyu la ñuy tëgg defar ko defar woo xam ni prévention la ci wàllu der kon saabu niim ngi ni mbokk yi saabu bi di jar deux mille cinq cent francs nga daal di ko mën a am ci cabinet bio rahma ñoo ngi tënkee sonal di si wetu pharmacie Astel su dee yaa ngi yeneen tund bu dee yaa ngi Ziguinchor mën nga ko am foofu bu dee yaa ngi Louga bu dee yaa ngi Mboro bu dee yaa ngi Thiès bu dee yaa ngi Touba bu dee yaa ngi foofee nga xam ne moo di Saint-Louis Rosso bu dee Dagana Ourossogui Matam foofu yëpp mën nga ko daal di am. di daal jàppal ne boo dee yaa ngi Ndakaaru dañuy def ay livraison à domicile bu dee yaa ngi Pire mën nga ko daal di am. kon yow mi seetaan ak déglu li bokkoon na ci li ñuy woon tey muy saabu niim muy saab boo xam ni baax na lool ci wàllu ndoxu siti yaram buy xasan ak yu ni mel saab bi mu ngi jar deux mil cinq cent franc ak deux mille cinq cent franc nga am sa saab boo xam ne mën naa yàgg ak yow lool rax ñi nga xam ne seen bopp dafa am ay teeñ wala ñi nga xam seen bopp dafa am crasse wala si ñoon bopp am na ay jafe-jafe yoo xam ni ci wàllu feebaru der yooyu yëpp bu ñu mënee am saabu niim bi saabu niim baa ngi nii mbokk yi. 2500 lay jar nga daal di ko mën a am ci cabinet bi Biorahma suñu téléphone mi nga ko 77 244 98 05 jaajëf.